asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen rajo Baol Média mu nekk seen rubrique actualité people actualité people nag dañ koy dooree ak ki nga xamante ne mooy Ahmed Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass nag maye na doomam ji nga xamante ne moom la ñuy wax Salma ñas Salma Niass di mathématicien bu diplômé ci grand université yi nga xamante ne moo nekk Amérique Salma nag mu ngi liggéey ci benn banque américain bu tudd wel Fargo en tant que responsable analyse moom nag marié na ak ki nga xamante ne mooy Mouhamed Ndiaye ingénieur nucléaire bu ñu jógee foofu nag dañuy jàll ci ki nga xamante ne mooy caat rapport boobu di caat nag euh, mu ngi ñëw ci li nga xamante ne mooy état d'urgence mu ngi wax ki nga xamante ne mooy membre mouvement Y'en a benn mobilisation bu fekkee ne mag yi defa prolongé li nga xamante ne mooy couvre-feu mu ngi lancé appel itam tout la population sénégalaise ndax nee na moom li nga xamante ne mooy couvre-feu expliqué wu fi dara moom nag nee na ñu ngi ñuy wax lu toll ci 17 millions d'habitants to ba ba tey jii amaguñ lu toll ci 20 000 cas nee na lan moo waral du ñu def benn test de masse parce que am na ñoo xamante ne amuñu 40 000 bu ñu defee test pour voyager. bu ñu jógee foofu nag dañuy dem fi nga xamante ne mooy bitim réew di tàmbalee fi nga xamante ne mooy États-Unis Donald Trump nag mu ngi xamal ne dañ kaa abandonné parce que personnel yi nga xamante ne moom la doon liggéeyal fa nga xamante ne mooy Maison Blanche nee na démb aljuma kenn ci ñoom xëy siwul actuellement nag ñuy xaar li nga xamante ne mooy résultat élection yi Donald Trump mu ngi mu ngi wër ay soutien wetu ay ñaaleem ak ñi nga xamante ne mooy ay électeurs am bu ñu jógee États-Unis dañuy jàll fi nga xamante ne mooy Turquie waa Turquie nag nee nañ ñoom pare nañ pour normaliser seen rapport ak France bu fekkee ne waa France moom sincère nañ ci li ñu wax ñoom nee na pare nañ normaliser seen relation ak France malgré tension yu xamante ne amoon na ci diggante ñaari réew yooyu fii la ñuy yem ak yéen ci people di leen jox dig daje ba suba incha allah jërë ngeen jëf.